asalaamaaleykum mbokk internet yi maa ngi ñëw ak yéen ci seen décortique série impact ñu toll ci épisode 4 décortique bi nak dañ koy commencer ak euh, séquence bi nga xam ni madame le commissaire mu ngi nekk di waxtaan ak policier yi gannaaw bi ñu jógee ci manifestation bi étudiant yi doon amal te kii di franc jëlee ci benn blessure ñoom nag bi ñu ñëwee ñu ngi gis madame le commissaire di yuuxu di wax ak ñoom di wax ne àndul si li fa xew mais ñun gis nañ comme ñëpp hein, le fait fait que les policiers sont indi à bi mais dafa amoon des personnes infiltrées qui xam ne dañ leen pour ñu semer la pagaille comme on a l'habitude de le dire donc dañuy gis ne policiers yi même parfois aussi dinañ def loo xamante ni bi neexul askan bi mais nekkul que chaque jour ñoom ñoo am tort parce que lu ñu gis gis nañ ne nekkul ñoom ñoo commencé jàmmaarloo yi nekkul ne ñoom aussi ñoo fa indi attroupement ya fa am mais ay nit yoo xam ne ñoo ñoo introduire si yëpp si côté étudiant yi pour indi li nga xam ni mooy mumbaay yi fa am ba ay blessé am fa ndax benn policier aussi jëlee na fa ay blessure dañuy bëgg a xamal ne nekkul que chaque jour policiers yi ñoom ñoo am tort mais aussi nekkul que chaque jour policiers yi ñoom ñoo tiire mais dafa dafa am ñoo xamante ni bii bu problème amee dañuy profité pour régler seen ay compte dañuy profité aussi pour fay ay nit ñu leen di def yoo xamante ne bi après dañuy jël toor euh, bi jëmale ko ci côté policiers yi wala ñu jël toor bi jëmale ko ci côté étudiants yi mais tey gis nañ carrément que du côté policiers yi du côté étudiants yi mais nag peut être ci kaw ci seen kaw lañ mën a teg toor bi ndaxte manifestement ñoom ñoo étudiants yi ñoo doon ñoo doon amal seen ay manifestation mais policier yi aussi ñoo fa nekkoon pour euh, aar ñi nga xamante ni bi ñoom ñoom lañ war a aar te loolu mooy seen liggéey ñu ñëw ci deuxième séquence bi ak euh, Mike Mike na gis nañ ne Prince woo na ko pour di ko xamal di ko laaj ndax génn li xew mais euh, dafa mel ne yëgu ko woon bi mu ko nee nag kii di rakam Franck dafa blessé ñu gis ne am na benn panique bu mu àndal mais aussi am na benn peur comme niñ leen ko waxee yoon ñun nag wóoruñu ba xam moom moo fay ñooñu mais am na njort ni moom moo leen fay pour ñu dem semer la pagaille moom nag gis nañu moo ngi rëcc xamul nag lan moo dal carrément rakam Franck ba léegi mais commencé na am ay regret ñu gis ne tamit ambition wala ay ay ay vœu lu mu mën a doon ci àdduna waru la jaral ngay def yenn yi parce que ak intention bonne mun am même bu nek bu intention bi lu mu bonne bonne bonne bon bu fekkente ne atteindre nga ko rek subitement da ngay commencer am regret parce que la personne est naturellement comme ça comme nous ñu koy nul n'est complètement bon mais aussi nul n'est complètement mauvais nekul que nit dafa bon ba ba ba sës ci bi non non ku nek rek am nga ben part de bonté bu nek ci yow que ça soit petit ou gros. donc gis nañ né bi mu yëgee ni rakam amna amna amna ay gañu gañu rek muy commencé di réccu. Té bu fekkoonte ni xalaat na ni li mën na si am peut-être du ko def motax tax lépp looy def rek nga xalaat après parce que regret mën na si am te regret moom day fekk jëf wess. ñu ñëw ci séquence bi nga xamante bi Aminata ak Issa doon nañ waxtaan mais Issa lu ñi némé ko ci kanam moy benn culpabilité parce que bi moo nekkoon première intervention bu mu am bi mu commencé liggéey ci métier takk der bi mais mu ngi regretter le fait que ay blessure am ci ci jamar loy mais tant que policier c'est naturellement am ay regret parce que bu sañoon du demee mais nekkul ne policier yi aussi dañu bon ñom seen sécurité motax ñu nek fi seen sécurité motax ñu bëgg suñu sécurité motax ñu engagé wu dem ci armée bi après ñu nek ñi nek ay policiers ñi nek ay soldats di dem ay mission ñu nek leneen ak leneen policiers yi ay nit ay nit lañ comme ñun ñu nekkee ay nit suñu kaaraange mo leen tax a jóg bu ñu dinañ am peut-être benen personnalité mais il reste des personnes comme nous te suñu suñu sécurité moom

instant bi ñu bëri amuñu lu leer si moom ndax ñi jàpp nañ ne blessure bi daf ko sonal bañ yóbbu ko fi nga xam ne mooy soins intensifs ñu nit ñi jàpp nañ ne aussi dafa ñàkk bakkanam mais Franck moom apparemment il se porte bien même su nekkee ne am na benn blessure mais yaayam la bëgg a torturer moo tax mu nëbbatu pour euh, pour metti tal yaayam donc loolu la si jublu ci dernière information yi nag gis nañ ci journal bi mu wax ni kii di Franck dafa mujjee décédé ba yaayam jooy foofu jooy yu metti ak ki nga xam ni moo di sëram di jéey waaye comme ni leen dooxee aussi Mike moom gis nañ ne amna ben panique bu mag bu mu am regret. donc euh, bu faites ne xalaat na mi ngi ngi am complicité ak frère bu fekkoonte ne tay vous na li nga xamanteni bi modi fraternité te ko vous kaw kon que vous lepp du ko vous fekk parce que dañuy wax ne le fekk jëf mais bala ngay def nga xalaat bu baax ne li ngay def la après bo topé sa mère ba def après ay regret rek indil so la meilleure des choses moy ne pas agir nga toog rester zen ba colère colère parce que quand tu agis sous l'effet de ta colère ay regret rek lay aussi bu nit droit jël chemin nit bu même frère la tu dois accepter voie bi jël nga ne yow voie de nga Euh, nekkul di la wax ne yow waroo woon jël voie bi kon yow aussi waroo waroo nekk di ko wax ne waroo woon jël voie bi da ma war a fekk si li ma bëgg loolu nga war a def même su nekkee ne yow yaa ko mag donc bu fekkee ne yow yaa ko ëpp expérience aussi am na droit mener chemin bu mu bëgg am na droit droit emprunter chemin bi mu bëgg yow en tant que frère li la war mooy jàppale ko si su nekkee ne chemin bi mu jël dina ko mëne

dañuy dañuy agir ak suñu instinct mais nag mun nañu jéem a essayer di contrôler suñu bopp ba nga xamante ne bi du ñu dëkk def ci ay ay erreur te am na loo xam ne aussi boo ko defee kenn du ko tuddee erreur mais yow tu vas rester li des sa dund di regretter alors que bo toogoon xalaat ne rëcc mun na si am ak lan moo tax may def lii lii aussi su ma ko defee lan la moo mën a jural des choses mondaines yoo xamante ne bi après day jeex te day am na jugement dernier am na donc balaa loolu lépp di si am ngay passer le reste de ta vie à regretter nga xalaat bu baax li ngay def ndaxte rëccu day fekk jëf wees ñun aussi foofu la ñuy tëjee suñu décortique bi di leen jox dig tëjee ba beneen yoon ak beneen épisode